alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xat saxani li watani bi nafa ma fani bokk jullit yi bokki taalib yi bokki réew mi yëpp ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha alxalifatul am li tariqati mouridiyya xafidahu llahu taala wa rafaa muy kàddu yu jëm ci mboolem bokk julli yi ci réew mi yëpp ak mboolem bokk taalibe muur yi yéen sañu digal sañ la naka rek kon ci ndigalu sëriñ bi ginnaaw bu mu nuyu ñëpp di eh, ñaan ñëpp di dellu siwaat di dellu ci alxuraan li mu santaane rek wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi wa samaraat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 li li ñuy def xaru la te alxuraan dafa wax ne famshu fi manaakibihaa wa kulu min rizqihi kon jug sàkku ji teraanga lislaam da ko santaane Sëriñ Tuubaa bind na ci bi ay bindam yu bari wa talabul xalaali fardun yentami li kulli muslimin bi xëy rohani kon képp koo xam ne ab jullit nga wala nga di taalibe jug sàkk lu lew loola lu war la ci yow loo xam ne farata la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 fa yawman tara usran wa yawman tara kon nañ nañ rafet njort te xam ne eh, bekkoor fu mas a amee naataange ci topp ne ko Cheikh na neewoon na ñu ngi ñaan lool naataange waaye naata naataange joo ma sa gis ak bekkoor ci topp waaye itam bu ma sa gis itam naataange joto kon na ñëpp seenum xel te xam ne sëriñ bi wóor teefam ci ñaan ak jubbanti nit ñi taw jihaat ak irshadaat mooy mooy warteefam mi ngi leen di ñaanal waxtu ne ñëpp nekk ci jàmm waaye tam mi ngi leen di soññaan nag ngeen gën a góor góorlu te xam ne kat la ngeen di def muy bëgg a teral seen wajur la ngeen di def ngir bëgg a teral seen jëmm la ngeen di def ngir bëgg lu ngeen jox addee li muy baax baax lépp nag la ci jiitu mooy sàmm su jëmm ndax doomu aadama suñu doon da ko teral boo wax ci alxuraan wala xad karam naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri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 الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرد وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني